dikkati naa loxol neen la duggee ci direction générale des élections réew mi quotidien ne ma mandataire bu Ousmane Sonko bi loxoy neen it la génnaatee ca direction générale des élections lank ne ko duñ ko jox nag fiche parenage bi la ñu def turbine yéen a leen maa ngi ni faa fa ma toogoon jóguma fa ci di leen xamal ne parrainage yu ma ne la sababam leen dongul ak président Macky Sall moom moo di doon ab tame yureen di segg nag ak di éliminer fa laaxu ñoo xam ne adversaire am lañ moo ne day gannaaw ba ñu ko tàmbalee wax ne parrainage bi baaxul seggukaay la am na ñoo xam ni demoon nañu kalaame juge CEDEAO yi nga xam ne nag ñoo toog ci dénduk Afrique ni fi faa daal di ne loi bu bi ñu def ci réewum senegal baaxul santul yàlla nan teggi loi bi ci réew mi parrainage bi nañ ko dindi ci réewum Sénégal turbine yéene kaay naan man juge CEDEAO wax seeni wax nguuru senegal jël wax yooyee déglu xool la leen saf ca mbir mi ñu def ko dem assemblée nationale nag yóbbu fa seenug loi coppet ci bii teg ci bee wàññi poudre faar ak capp-cappal waaye terewul parrainage ba moom ma nga fa riigu rek dëju juge CEDEAO naan leen na deñ nguuru nguurug Sénégal naan axa ah, ah, kay day dañ yóbbu ci assemblée nationale joyanti defaraat gaaya naan leen waxuñu lii na dañ terewul ñu nga tëtti ci parrainage bi ba tey jii mooy gàllankoor laa ñu la buñ tegal yenn ciy candidat ngir ñu mën a jàll yéeni kaayib dee média bi naan man cim parrainage moo mën segg xay moo bon ci ay adversaire président Macky Sall waaye tam mooy wéyale dëgg-dëgg charte africaine bu démocratie lenn lu ànd ak démocratie laa la parrainage bi jëf ko ci réew mi yoor yoor naan waxuma xam moo nekk hors la loi moo daal di nag caxat caxatee article L 47 bu code électoral bi le témoin yéen kaay naan man état bu Sénégal ci boppam moo nekkul ci yoon ndax nag ay décision de justice yoo xam ne ñoom arrangé wu leen léegi dañuy lànk nag naa duñ ko defee ci réew mi démb mani la ngir bañ a jot décision de justice ba bàyyeekoo ca sigi coor ngir mën a jébbal nag fiche de parrainage mandataire bu Ousmane Sonko bi moom directeur général des élections dafa ne manul recevoir tey daal nekku fa huissier constaté na ko ñoom ay avocat Ousmane Sonko di ko naqarlu ne fi ne daal état bi moo yor ak yetam di dóor fu ko neex l'info yéen kaay nan man moom Ousmane Sonko day man mani la na xam ni fa mu jëm a nguuru Sénégal ndox amagu fa bàyyi ci boppam la ñu fa sud yéene bàyyi la voix du sud nan man boo bëggee comprendre coowal Ousmane Sonko lii déglu ma kii di Ousmane Sonko kii di Mame Boye Diao kii di Bougane Gueye Dany ñoom nag la tu système bi di dippee ay traître may ma nopp ma xamal la ni fii ci dénduk Afrique day lenn la ñu tàmm moom mooy président boo xam ne falu nga daanaka ci néew ngay génnee ca palais ba ca indépendance accès ba suñu jonn yàlla tey président bu falu fii ci Afrique danga naan faax toog deesu la mën a génneeti élection bu ñëw kay yow yaay jàll sa bopp moom yaa koy wutu fayal laaxu tey jii nag gaa yi dikk muy Ousmane Sonko ku ci mel ni Mame Boye Diao wala Bougane Gueye Dany daal dina xeli la nu bëgg soppi ci dénduk Afrique daal dina caxat-caxatee Afrique ku moomeelam fexe ba riigu ci nguur gi ak noo ko mën ci defee day jeex ci Afrique tey kay africain yi ci boppam dañoo war a wutuk nguur ci lenn benn objectif moom moo di fexe ba suqali seenu xeet ak seenu askan ba ñu gis seen bopp jàpp ne dëgg-dëgg am na ñoo xam ne dañuy fëgg dënn seen dënn yëngu ñu ne jàkk seenu askan ne leen lu leen jëmale kanam mooma fi tax a te loolee dañu koy daal di jëfee fa yàllaahu te xam nga ni jëfin googee arrangé wul ñi nga xam ne ay nitu système lañu ñoo xam ne ni la ba indépendance de indépendance ak tey ñi ngi féetoo ak nguur di doxee na nga xam ne noonu la nguur di doxee mooy lenn rek ne faax ci nguur lu ñu am séddoo fa yàllaahu dundee dunduk buur te nag ñaquk baadoola googee di sim terek buur loolu la fi yenn ci politicien bëgg génnee ci réew mi loolee nag moo tax tuñ tuñal gaa ngi mel ni tulleeg maale am nay politiciens yoo xam ne fii ci réew mi dañuy daal di déranger la voix du sud nan man banxal sa baaraam Ousmane Sonko nga ca Mame Boye Diao nga ca Bougane Gueye Dany nga ca Abdourahmane Diouf ma nga ca Guy mari Sagna ma nga ca ndax ñoom ci boppam ñoo jàpp ndaw yi naan leen fa ngeen doon xool baaxul xool leen fii mooy fan fi nga xam ne nag moo baax ndaw yi nga xam ne ñoo bëgg a suqali Afrique ndaw yi nga xam ne intérêt amuñu ko ci falu ndaw yi nga xam ne seen mbëbët moom moo di daal di jàppale seenu askan yi nga xam xam ne fi mu ne débat bi ci langue politique gi dañ ko daal di soppi ñi fi nekkoon ni faax nii buur ñu jëlee leen fi teg fi ñoo xam ne ma ne la daanaka ñooy soppi système bi soppi ña doon doxal sistem bi andi fi politique bu yees boo xam ne ku ci tënku daal faaw nga xam ni Angleterre du pomme de terre tribune yéen a kaay nan kon en tout cas Sénégal tàqalikoowul ak coow fi mu ne nag foo lamb ma ngay bëx bëxi yéen a kaay des bi nan man demal ci njàng meeg njàngale mi Sénégal ci boppam dafa manqué ñu jàngal xale yi ay junniy jàngalekat la ñu ne moo manqué ci réew mi ku kaas ñu dàq nguurug gémmiñam waxu ci te fi mu ne waxi recrutement ay jàngalekat waxuñ ci bari nay ndongo yoo xam ne ci ay tant ci naaj bu tàng la ñuy jàngee laaj ba samp moom moo di jàng mi nga xam ne fi mu ne moo mën a tax suñuy doom am xam-xam ëllëg ndax nguuru Sénégal def na ko priorité yéen kaayib des médias bi naan man bul dem desal ci man ma xamal la ni fayu courant mi ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi tongal askan wi Sénégal institution financière yi nekk bitim réew xoj ko subvention téeméeri milliards ba mu doon jox Sénélec mu daal di koy gàntal Sénélec nag jàpp askan wi di xoj naan bi xañ ci yéen laa koy jëlee askan wi di tuñ tuñal ak facture yoo xam ne cher na lool l'exclusive yéen kaay naan man Amadou Ba laa yërëm Amadou Ba mii war a ngàlloo bilan président Macky Sall war a dagaan baatu askan wi laa yërëm yéen kaay bi naan man ay opposant Amadou baa ngi nii émigration clandestine ñàkku xëyu ndaw yi dund goo xam ne cher na lool dynastie fay Sall yorin goo xam ne bon na njëg yi xëy di yokkute kenn mënu ci dara scandale yi nga xam ne daal dinay bari lool ci yornuk réew mi yoo am na 2019 bi fipp xam ne moo am ci seen coalition jiital sa intérêt njaboot laata bu askan wi loyer yoo xam ne cher na lool dund goo xam ne métti na ñàkkuk dund gu doy ña àndut ak moom te bokk ak moom coalition bari lool yëg bopp ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi coowal 96 milliards yi rapport bu OFNAC ak bu ARMP yoo xam ne mujjeewul fenn détenu politique yoo xam ne bari na ci réew mi justice boo xam ne paaka ñaari boor la yéen kaay bi kon amadu déglu ma de say adversaire ñoo ngi nii nañ ko def ci chef bu opposition bi complot buñ defoon ci Ousmane Sonko mu daal di tàbbi géej riigu gi ngeen riigu ci média d'état yi wér yaram goo xam ne feebar na ci réew mi njàng meeg njàngale mi moom daanaka ma ngay sukuraat baykat yi nga xam ne ci réew mi ñoo gën a sonn kuy sonn syndicat yi nga xam ne ñoom it ñaxtu la ñu xëyee Amadou jàppal yow say concurrent ngi nii tribune yéen kaay naan kon ak coppet ci bii teg ci fee ci loo xam ne jaar yoon Oulimata Sarr min déjjatee ca ministère bu économie ay soxna ci boppam ña ngi koy daal di naqarlu ndax yoon njëkk ab soxna daal di jël ministère boobee te defoon na ciy jéego yoo xam ne daanaka Sénégal a ngi ci doon gis boppam kon déjjëti bi ci boppam warul terewul am nañu naan Amadou ko yor ca galoya mouvement politique daal dina téppit lamp ya daal di fay jël ay gaz asphyxiant daal di koy tëmbal ci biir salle bi saqat geeg toxo toxo noppil gi mel ni tuleeg maale sabotage ga daal di tàmbali coow laak bërbër ga daal di tàmbali timboo ma nga xam ne mooy porte parole coalition ba foofee ma nga naan leen booloo leen lu ko Matam moom jaxasoo na daal fayallaahu Walf Quotidien nan kon fi mu ne réew mee jaxasoo moom Benno Bokk Yaakaar benn noon la am bu muy jàmmaarloo ci élection présidentielle yi moom mooy njëkk yoo xam ne daal dinay cher lépp daal di yokku ci réewum Sénégal kii nag fi mu ne moom la amadu Ba war a xeexal de njëg yu cher yi moom la amadu Ba war a xattar bi ba biir weex mu tekki suuf su ko deful mani la pale bee seen la cay am wala it bu président Macky Sall di tàggoo mu ànd ak moom tàggoo fayallaahu waaye dugg ca palais ba moom weccoo léngeeg président Macky Sall mënta ne yoor yoor yéene kaay naan man Bakary Domingo Mané analyste politique ma nga naan diggante président Macky Sall ak Amadou Ba ñett yii la confiance méfiance ak défiance Sall bu ko wóoloo ca wet gaag ma nga am lu muy sóor ngir ëllëg ndax à tout moment lu ne mën na am diggam ak Amadou Ba waaye tamit kan ci ñoom ñaar moo war a dëkk moroomam en tout cas mbir mi jaxasoo na daal l'enquête quotidien naan man ba Babacar Sall kay kenn gënu jaxasoo le ci réew mi moom Khalifa Babacar Sall yeewi askan moom ber nañ ko jàppale sëriñ Moustapha Sy ma nga xam ne moo doon alliéem daal di beddeeku fa yallaaxu sori lool Khalifa Babacar sàll ña nga xam ne ñooy force de gauche yi mel ni ñoom it ko mës a xam xaaf Khalifa Babacar Sall nag ma ne la fi mu ne ngir mu dagat baatu askan wi wara liggéey dëgg-dëgg moo ne day ñamu àndal ña nga naan am na ñoo xam ne ay der lañu fas na nañu yéene fekk si taxawu moom xaaf nag ña nga xam ne rëkkale nañ leen ca parenage ba l'enquête quotidien naan man boo moytul mën na caa xaar de ndax mën na caa tibb aslëf daal di fegg ca wetam turbine yéene kaay naan man Ousmane Sonko booba ma ngay xaar atteem ak Mame Mbaye Niang lan la ci ëttu attekaay bu kawe bi wax ndax nag dogal bu mu ci jël bu dul ne ko atte boobee jaarul yoon Sonko mën naa yàqule laas yéene kaay naan man en tout cas Ousmane Sonko tey jii ëllëgëm mi ngi ci loxol ëttu attekaay bi gën a kawe ci diggam ak Mame Mbaye Niang Vox Populi naan ko déet ak kay nan ko rajee ci liste électorale yi ndax moom juge Sabassy Faye gannaaw ba nga xam ne nee na Sonko nañ ko intégré waat acte ba posé na ko moom moo di jébbal notification préfet bu Ziguinchor ne leen atteeg Ousmane Sonko bi dañu ko defee dañ ko patam-patame yàkkamte ko teg ko loo xam ne duy daanam nañu delloo Ousmane Sonko mii ay droit am te delloo Ousmane Sonko ay droit am nag dëgg-dëgg mooy fexe ba mu bokkaat ci élection yi libération naan man gannaaw Ousmane Sonko grève de la faim bi bentalab sow kenn ci moom ñu tëmbal ka kaso soobu na ci grève bi bentalab naan man ñan ma jàppandooloon ci mbiru Juan Branco bi moom Juan moom libre na fa yallaaxu ñeneen ñan ca taqe woon libre nañu man ñu bëgg maa sacrifier def ma béyuk sarax gi duma ko nangu naan leen sama jàpp gi jaarul yoon nañ ma bàyyi tribune yéen kaay naan maan boobu président Macky Sall mook Amadou Ba day ña nga soobu yéene kaay bi naan maan diggante Kaolack Kaffrine ak diwaanu Fatick Sall ak Amadou Ba fas nañ ko yéene wër Le yéene kaay naan kon président Macky Sall nag war soobuwaat ci yeneen projet yu mag diggante Ndakaaru Saint-Louis ñu war fa taxawal autoroute boo xam ne ñaari téeméer ci kilomètre lay jaar diggante Tiwaawan Mexe Ndand Ngéewul Louga ak Gandoo moom président Macky Sall war fa xàll yoon ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci milliards ñu war ko ci def réew mi quotidien naan maan boobu FMI ma ngay xam le ni na croissance su Sénégal ma ngay jëm kaw laas naan maan boobu libero yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Thiès ñoo doon xeexoo xeexoo gu métti ba maar day taali ca seen permanence ba teye salaat yenn mbir foofee moo waral seen xeexoo goo xam ni métti na lool turbine yéen kaay naan boobu président Macky Sall day ma ngay dàqe niki démb daal jël naay ankara moom Sall di effacé ko gome Mamadou Moustapha Diagne dàq nañ ko ca ministère de l' éducation nationale jégeem ak Mouhamad Boun Abdallah jonn ñu ne moo ko waral laas naan maan boobu dégaa yaa ngi ci réew mi set ñetti élèves yoo xam ne ñi ngi ci classe cinquième ca collège ba ñoom la benn tracteur daal di jaar seen kaw ñu daal di faatu ci saasi moom docteur Cheikh Omar Anne ministre de l' éducation nationale ni ki démb demoon na nemmeeku ji njaboot gi ànd caak inspecteur d' académie bu Thiès naan leen lii am tey fii ci taset mënoon naa bañ am te daañu def kéemtalaay kàttan ba yoon ñu daal di koy doxal ci mbir mi ay daan yu daal di tar ñu daal di koy teg ci ñi nga xam ne ñoo def lu ñaaw lii ndax nag xel mënta nangu ay nit nekk ci digg tali